tey bésu dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février bi nekk ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci ñaari junni ak ñett téeméer ak juróom-ñett test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñoo xam ne ñooy kaa contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn kaa bu jóge bitim réew mooy maanaam importé am nañ ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ñooy cas ñu tuddee communautaire communautaire yooyu mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci gox yi juróom-ñett ci Dakar Plateau juróom-benn ci Mariste Diamniadio ak Kër Massar ñeent ci Jëppal Rufisque ak Liberté 6 ñett ci Parcelles Assainies Grand Yoff ak Pikine ñaar ci Castor Liberté 2 Mermoz ak Cité benn ci Médina HLM Grand Dakar cité ISRA cité cité Sicap Karak Amitié 2 Liberté 4 Mamel Sicap Foire Cambérène cité Mixa cité Soprim HLM Grand Grand Médine Sébikotane cité Fadia Jaxaay Zac Mbao Grand Mbao Kër Mbay Fall cité Sococim cité enseignant ak ñaag ci région yi am nañ ci juróom-ñeent fukk ak benn yu tëddee ni ci gox yi fukk ñaar ci Thiès ñaar ci Mbuur juróom benn ci Kaolack juróom ci Ngaparu ñeent ci Sokone ak Tivaouane ñett ci Kébémer Kédougou Louga sali Popenguine Thiadiaye ak Touba ñaar ci Porokhane Tamba Mboro ak Bambey benn ci Jaxaaw Diourbel Foundiougne Joal Kolda Nioro Pout Saint-Louis Sakal Sédhiou sànjara Ndiassane Morola ak Ziguinchor ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ci malade yi ñu entré woon wala ñi nga xam ne ñu leen doon topp ci biir kër yi wër nañu bés ni wër nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom fukk ak ñaari malaat ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo ñàkk seen bakkan bésu démb gaaw ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février mi nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak ñeent ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñett ak juróom-ñett ak juróom-ñeent fukk ak ñeent wér nañ si juróom-ñett téeméer ak juróom fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom ak juróom fukk ak ñett ci lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi